le meilleur choix pour vos chantiers. di sant aussi di gërëm aussi le président du conseil départemental bi nga xamante ne tam aussi euh, forum bi yëpp euh, euh, li jëm ci wàllu organisation bi ci loxoom la tegoon. Euh, mu def liggéey boo xamante ne euh, vraiment ñun maire département bi yëpp vraiment rafetlu nañ ko donc lii dafay wane ne rek euh, mbooloo mooy doole parce que kenn ku nekk boo bëgg yëkkati sa côté amaana dana am ku ci néew doole koo xamante ne xëj na bu bëggoon demal boppam du mën a demal boppam mais bu ñu boolee suñu doole lëkkale rek mu doon benn amaana lii nga xamante ne mooy suñu objectif di ñu ko mën a atteindre te damay wax ne bu ñu atteindre suñu objectif atteindre nañu objectif population yi parce que ñun population ñu fi teg te tax ñu teg ñu fi nag du dara lu dul fexe liggéey liggéey boo xamee dana leen amal njëriñ euh, euh, donc nag euh, dañuy ñaan yàlla rek yàlla jàppale ñu si mission bi ba attentes yi nga xamante ne moom la suñu population population di xaar vraiment ñun ñëpp aussi ñu gis aussi suñu ndam loolu moo waral tam aussi comme ni ngeen ko gisee fii communes yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi yëpp kenn ku ci nekk am nga fi indi fi tam aussi li nga xamante ne mooy liggéey yi nga xamante ne moom ngay def sa biir commune Euh, euh, wane ko euh, fas yéene tam aussi wane tam aussi fa nga jëm sa commune pour lu ko suuxali ak lu ko jëme kanam. waaw donc loolu moom xam naa ne dama koy bàyyi ak ki nga xamante ne moom mooy Mamy Kébé mu def présentation produit yi nga xamante ne moom moo nekk ci taabal bi muy liggéey boo xamante ne dañ si fas yéene sukkandiku pour mën a yëkkati li nga xamante ne mooy le développement local parce que li ñu wax naan na sa fekk loxol borom aussi moom mooy loolu. Euh, donc ñun bëgg nañu produits yi nga xamante ne moom ngeen fi gis euh, mu doon ay produits yoo xamante ne danañu dem ba mën a am ay unité de production euh, ginnaaw bu ñu amee unité de production itam aussi ñu fexe mën a am li nga xamante ne mooy des boutiques de commercialisation Euh, ak labellisation produit yi nga xamante ne moom la ñu fiy liggéey donc xam naa ne pour présentation euh, li nga xam ne moom la ñu fi exposé dama leen di bàyyi ak Mamy mu defal leen présentation table bi wax leen liggéey bi ni mu demee parce que euh, ànd si ak ki nga xamante ne mooy Diarra ak ki nga xamante ne mooy Astou Ndaw waaw parce que xam nga mooy wane fu ñu jëm waaw wu ñu fu ñu jëm moo tax ñu ne bari Bargny territoire d'opportunité et d'avenir waaw parce que territoire la boo xamante ne li mu am ci ay opportunité bari na Euh, te opportunité yi bu yàlla defee euh, lu ci nekk ñu jox ko cëram euh, yaakaar naa ne avenir yu ñu jëm ay avenir yu meilleur la te daanaka bi ñu toogee ba léegi sax daanaka loolu commencé na ko wane. waaw parce que déjà que ñun bi ñu toogee ba léegi ci wàllu liggéey gis nañ ne lu bari ñu ñàkkoon lu ne mu ngi ko commencé am parce que tey sur le relèvement du plateau médical xam nañ ne bari ñu amul woon dara képp ku daan am soxla ci wàllu wér ak wérle le nga daan dem jam ñaajo maa nga dem tëngëj mais tey jii bari ñu tey boo fa ñëwee tey am na cabinet dentaire Euh, numérisé dernière génération Bargny am na laboratoire analyse médicale dernière génération Bargny am na centrale d'oxygène dernière génération Bargny am na appareil électrocardiogramme am na appareil écho-cœur multifonctionnel boo xamante ne tey mu ngi foofu boo xamante ne dina jàppale askan wi. Euh, li nga xamante itam aussi mooy euh, xeetu rajo yi nga xamante ne yu bëri dañ ko daan jéggaani yàlla def na aussi vraiment am na Bargny Euh, donc nag euh, ñu ngi ci kanam te gëm nañ ne dëkk bi comme que yàlla dénk nañu ko rek ñun gëm nañ ne dëkk bi dana jëm kanam parce que man ay liggéeykat rek laa sawar a àndal. parce que dëkk li koy jëmee kanam mooy liggéey euh, jigéen ñi boo gisee ñu nekk sumay xarit ma fonk leen dafa nekk ay jàmbaaru liggéeykat ñoo xamante ne ku leen xam si liggéey rek nga leen xam te dëkk itam boo bëggee jëm ci kanam il faut nga am ay liggéeykat ay nit ñoo nu sonn ay nit ñu am am xam axu liggéey pour que fa bëgg mën a yegg aussi vraiment ñu yegg fa. mooy ay jàmbaar yoo xamante vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. Wuli ñu gën maa xam ci Mami Kébé euh, may nekk Bargny nag euh, di benn jigéen boo xam ne damay liggéey ci euh, entrepreneuriat féminin ñu ciy def ay liggéey am solo ñun nag Bargny dañu nekk jigéen ñoo xam ne dañoo polyvalente tey jii ñetti groupement ñëw na présenté représenté Bargny commune de Bargny ànd ak suñu monsieur le maire. Euh, muy femmes yi ngeen di gis si si gannaaw euh, ñoom ñëpp dañuy dox ci entrepreneuriat féminin mais nag dañoo polyvalente parce que lépp la ñuy def tey booy xool produit yi euh, produit yi savon liquide ñoo nekk nii mais dañuy liggéey parfum chambre ak li nga xam ne à froid gis nga ay gel de bain eau de javel donc fii booy xool produit produit locaux yi nga xam ne ne moom la ñuy jariñoo dañ koy liggéey lii ay savon bio lañ mais am nañ détergent lave vitre produit yëpp yoo xam ne daal produit locaux la rek dañ koy liggéey ñu jàll ci alimentation bi li tax ma ne dañoo polyvalent gis nga lii céréale la euh, lépp loo xam ne céréale la rek ñun dañ koy produire dañuy def sax céréale enrichie muy céréale boo xam ne légume lañ koy defaree donc loolu euh, c'est une plus euh, boo ñëwee da ngay gisaat jus yi ñu ngi nii ay jus li nga xam ne sirop local yi gis ngeen moo nekk nii en même temps dañuy defar jus yi nectar gis nga lii yëpp ay produits locaux la fruits et légumes bu ñu fa duggee dañuy def lépp kon transformation bi nga xam ne moom moo am ci entrepreneuriat féminin jigéenu bari ñu bàyyiwuñ dara lépp la nga xam ne nii dañ koy def rek te di ko jariñoo dañ koy defar mu nekk euh, lenn loo xam ne nag euh, plus lay doon ci ñun parce que da ngaa waroon a jël sa xaalis dem di ko jëndi tey bu fekkente ne lait de corps bi nga xam ne moom ngay diwoo mënal nga sa bopp yaakaar naa ne xaalis boobu dafay dellu si yow su fekkente ne li ngay dundee yëpp mënal nga sa bopp xaalis boobu dafay dellu si yow euh, mu nekk loo xam ne nag dañu ci accompagner maire daf ñu ci accompagner avant muy nekk maire mu dem ci quartier Bargny yëpp quartier bu ci nekk mu tas ko quartier bi mu defal la lii quartier bi mu defal la lii quartier bi mu defal la lii quartier bi mu defal la lii euh, kon suñu polyvalent euh, yàlla def na ne c'est normal parce que bàyyiwuñ seetaanul benn lépp la jël boole ko jox ko jigéeni Bargny kon il faut ñu ñu ñu polyvalente euh, lépp la ñuy def macha allah. Ah, dama ni lu bees tax moo am fii si Tëngéej seen supermarché Allo viande Allo poisson seen coono jeex na yéen jeeg ji du nouveau dans le département de Rufisque Allo viande Allo poisson ngeen mën fi am lépp loo leen soxla ci wàllum alimentation générale charcuterie ndawal bu nooy tebes taax jën yu baax seen njëg yu xéewale yemu fa am na fast food pâtisserie glacier ak transfert d'argent Allo viande Allo poisson seen supermarché bu bàyyiwul dara yéenay boroom adresse moo ngi si route nationale jàkkaarloo pharmacie Astel